dëgg la euh, ñu dem si affaire seri bi ñëpp xam nañ ne instant yi wax yi bëri nañ wax bi bëri nañ surtout ma mhm. yi série avant da nga doon seetaan série xëy na mu nga jàngat si mën mhm. ko seet seytaan ak say doom mhm. mais léegi gis nañ seet yoo xam ne tey doo ko mun a sax seytaan ak sa yaay wala sa papa wala sa mhm. rakk sax bu góor munoo ko seytaan ak moom mhm, mais parce que sa bi nekk ci yow wala image boo xam ne tey mu ngi koy gis te bëggoo tey sa rakk mel noonu wala mu setoog di ko seytaan ba nga ba mu jàpp ni que baax na problème leena géey bi gis nañ ni que dégg nañ si wax yi mooy daf la plainte waaw xam nga tey si tey maanaam mooy li ma la wax dëkku naa fekk bi rek mhm. suñuy valeur nañuy sàmm mhm. ak suñu diine ak suñuy intérêt économique ak lépp ak justice am si réew mi xam nga mhm. kaa leen a boobu nga xam ne day yàq suñuy valeur di saaga maanaam suñuy jigéen di saaga valeur sénégalaise yi di yàq suñu ay doom ak suñu ay jarbaat dañu génn dénoncé ko wan sénégalais yi nii kii ngeen bëgg def royukaay kii démam nii la menoon moo tax mu sañ fi def lii xam lu ma la te dañ ko def pour intérêt Sénégal ñun faale ñu ko te mais est-ce que tamit kàddu yi ñaaw plainte bi muy wax naan plainte dëgg la laa si am te ba léegi maa ngi koy xaar est-ce que dëgg su plainte bi ñëwoon saa ñu ne lundi lundi incha allah xoola ñu dam te su boobaa incha allah ah xëy na moom sax moom askanu Sénégal lay plainte est-ce que ay dëgg du ñu plainte ñun kase parce que ñun dëgg bi ñuy wax te yàlla rek a tax mais moo bu nga diine yi ak nit yu baax yi gor yu baax yi Sénégal fii nga xam ne ñoo fi ëpp fuuf saawaay dañuy wax di leen waxal parce que seen baat àggul foofu xam lu ma la promotion caga ak promotion góor jigéen Sénégal fii képp ku fi ku ko fii def rek saawaay ah xëy na lii sax day sedd bu lii raam si ñag bi la jëm nañ dem ba si kanam lekk ku fii dëgër ku fiy euh, dëgër bët naan naan day jaay sañ naan day jaay dëgër fit di def ay promotion caga ak promotion góor jigéen nañ dem ba si kanam lekk incha allah. xam nga tey nañ xam ni askan wi duñ ko mos a nangu. xam nga tey te tey lu mu bon bon bon am nga ay sœur jigéen moo la jur. est-ce que est-ce que tamit li nga ko waroon wax mu waroo ko woon woo si rukk nga wax ko parce que leena yaay la am na doom. gis nga gis nga leena Gueye. Mm. suturaal ko ak xool xool yi ngay wax nii yëpp joli cœur. ne ay xama ay noo jigéen la yaay booy la am na doom bu góor affaire yooyu suturaal sutura sutura boobu noonu moo tax sax ñu génn wax ak moom sinon teg nañ bët benn vidéo boo xamante ne nii. gis nga bu ñu soxoroon dëgg wala ñuy bëgg xaawi suturaam vidéo boobu dañuy fexe mu génn te xoola munoon na munoon nañ munoon nañ def le tout mu génn te xoola di ñu si mës a feeñ te fa lay jaaree xoola gën a yàqu si mim réew mais suturaal jigéen moo tax saa waaye ñu seetaan vidéo bi def le tout ganaan ba nga xam ni vidéo bi encaissé wuñ ko te def le tout ba nga xam ne vidéo bi tamit tasul demul fenn. dëgg Sénégal fii ñëpp xamante nañ Baye Fall. dëgg la ay dëgg. Mhm. xam nga boo toogee gaamal la sumuwaay nit woo la ngeen ñëw ngeen gise mu wàll vidéo yooyu noonu nga xam ni combat bi gaamal la suma du yow kase <laughs> du dëgg dëgg la képp ku ñuy gis ñun ñi nga xam ne suñu jëmm yu xeebu yi nga xam ni tekkiwuñu dara mhm. saawaay ñuy wax te yàlla rek a tax mu muy doon dëgg xàq bil xàq te yàlla rek a tax est-ce yaay dégg mhm. nga gis ñu naan dag ñuy jéem a fexel wala dag ñuy jéem a fagaara wala dara yaay nax sa bopp ñun combat yi ñuy mën a nii dañ koy def xoola pour intérêt Sénégal njaay muy kilifa diineex nit yu baax yi gor yu baax yi Sénégal fees fi dell di ñu jàppale di ñu ñaanal di ñu dooleel te yàlla rek a tax te yàlla kese moo ñuy sàmm te moo ñuy aar ah. moo ñuy làq fu yàq yeggul insha allah loolu euh, demee deux questions rek laa am beneen bi xam naa ne ma koy bàyyi ba keneen ki bu mu lay mhm. jël si beneen euh, beneen émission bi mhm. mooy euh, gis nañ benn actualité buy daw mooy xale bu góor boobu noonu nee nañ àndul ak xelam mu dem ba kër Youssou Ndour bëggoon ko gis mu nan nga gisa nan nga jàngatee loolu parce que ñu bari dañ ko ñaawlu waaw xam nga loolu noonu moom famille ku góor gi moom hmm. lii but buti ci suuf di but buti luy but buti but buti mooy maanaam xam nga dëgg dafa feeñ te dafa nëbbu waaw waaw mooy luy làqu si suuf daal luy làqu lu mystérieux loolu mooy but buti but buti boo xool mystère la quoi parce que but buti boo ko waxee sax gars yi dañ ñaan luy but buti mooy mystère loo xamante ni nii fen bu jëlee ascenseur dem dëgg yàgg-yàgg dina jël escalier ñëw si ay dëgg mm. waaw tey si tey Youssou Ndour bërki demoo njaay ñun dégg nañ askanu Sénégal xawma ma ay affaire de signal xaw ma lan benn patron de presse taxu toog si telem di dénoncé daan mm. ko da doon sàcc signalam ak yooyu fan la mm. mujj fenn lu muy génn naan wàññi ko wàññi ko wàññi ko ñun askanu Sénégal ñu ngi bi mu nee wàññi ko rek ñun askanu Sénégal ñu ngi naan ah kii da Macky Sall lay waxal mu wàññi jaay doole bi <laughs> ak wàññi dund bi ak yeneen ak yeneen uh-huh. Youssou Ndour askanu Sénégal da koy bàyyi xel te kilifa la si mim réew dëgg la nekk doom maintenant nekk suñu fierté mais dañ koy xaar xoola si mu ñëw maanaam jël position ànd ak askanu Sénégal xam nga si lan mm. wax ak Macky sàll dëgg comme moom tamit conseiller la mm-hmm. mu ne ko kat Sall ngaari lam tooro troisième mandat dañ koy tere c'est mort quoi c'est fini pour toi xam ñu koy wax dëgg mu wàññi ñu suñu dund ak yeneen ak yeneen bàyyi jaay doole bi. dëgg xam lu ma la wax. Mhm. noonu la demee te tamit employé yi. ne leen teg si yoon parce que boo fi taxawee gaan ne da ngay liggéeyal askan wi. Mhm. ah nga da ngay ubbi ay imprimerie yu bees. Mhm. na ngay ubbi ay télé ak yeneen ak yeneen. yooyu noonu yëpp c'est bien boo mais bu ñu sax jéem a teg xel. fay impo si dooleel Sénégal la bokk. bu ñu ko deful nañ ko def. bu fekkee defuñu ko dañ ko def. Mhm. di fay employé tamit seen employé di leen fay lu baax ba pare di leen bañ a amel xaalis di leen mettre dans de très bon condition loolu si dooleel Sénégal la bokk ak si liggéeyal Sénégal mais ñun askan bu ñu xëyee gis kenn koo xam ne nee nañ employé am la ñu génn naan xaw ma dafa dof affaire yooyu naan xaw ma dafa xaru affaire yooyu te waa këram ne doful a jàpp ko est-ce que ay dégg. kon loolu noonu kat na yoon def liggéeyam. na yoon def liggéeyam waaw buy buddi noonu ci suuf na leer nañu si kanamu sénégalais yi. mooy loolu message bi ma bëgg tëjee te yàlla tax mooy ñi nga xamante ne nii gaan ñoo fi yàgg génn di tëbaka dal naan waaw complot complot complot naan dañuy complot si ginnaaw sénégalais yi te tey si tey ñoom ñu ngi ànd ci suuf di def ay complot ay mafia mhm. politique ñoo mhm. xamante ni nii gaama la sum waay xëy na benn poste kase nañu bëgg mhm. wala dara kase muy seen intérêt personnel mairie Dakar ndakaaru njaay jël jóob mhm. du mës a nangu saawaay ay mafia yu am yu am ci suuf yoo xamante ay affaire de politique la mhm. jugewoo si kaw yooyu noonu saawaay xam nga kan nañuy waxal mhm. Barthélemy Dias Barthélemy Dias waaw ak euh, parce que da leen di lim ñoom ñëpp pour sénégalais xam ne am si ñoo xam duñu leen lim après nga tëjaale Bamba Fall ay Seydou Gueye ndax ay yeneen politiciens yu bëri yoo xam ne instant bii nii dëkk bi sénégalais yi ñuy jaaxle naan corona corona nit yi tiit jaaxle ñoom ñu ngi ci suuf di lal ay mafia politique pour seen intérêt bopp. dëgg la maintenant saa waay xoola kenn du ko mës du ñu mës a nangu doom maintenant saa waay xoola ñuy def ay mafia pour xoola sànq avenir u Médinois yi. bëgg ñu mm. jël forcé ñu ay Seydou Gueye ndax ay mafia politique yoo xam ni troisième mandat nañu bëgg xama bëgg lijjanti Gloria Gloria boobu noonu di bud budi ci suuf Khalifa Sall la. <laughs> est-ce que ay dëgg. Khalifa Sall. mooy mooy Gloria ah. moom la gars yi noonu saa waay xoola di jëm a bud buti gaamal la sum pour ñëw kii ko Sénégal mais Khalifa di dignitéem ak ngoram. mayu ko loolu moom ba nii may wax ak yow ba nii may wax ak yow bugg ko. mais ñu ngi façon forcé boo xamante ni nii. te xëy na buy dem bay d'accord sax du ko tey parce que gars yi ñu ngi si kawam surtout si mbiru baatin ok est-ce yaa ngi dégg mhm. te yàlla tax nañu bàyyi seen yooyu noonu ñu xool intérêt réew mi mairie Dakar boo ko bëggee gagné wala nga bëgg gagné mairie Médina wala dara du nekk ay mafia ay deal politique non non da ngay wax say militants ak sénégalais yi ñu dem uti xoolal seen carte électeur xam nga vote jot saa waaye xoolal ñu def transparence élection saa waay xoolal transparente sénégalais yi voté def seen choix. loolu la ñuy xaar mais pas ay mhm. mafia politique. Mhm. foofu laay tëjee na parce que Sénégal gëstu xam-xamale la te ñun du ñu tuumaal te du ñu sosal doomu aadama barki alxuraanul karim merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal. mais dañuy bëgg nga wax si Baye Fall bi nga tëjaale noonu ñu tëj plateau bi. waaw Baye Fall moom di lancer message sénégalais yëpp ku si mel ni moo gër si ñuy rafetlu taxawaayam. si maanaam jàppale bi mu koy jàppale mhm. waaw na sénégalais yi am doole surtout suñu état ñoom ñi nga xam ne ñoom nañ dénk mhm. suñu état bu ñu dénk suñu alal ñun suñu alal la sénégalais bu feebar état da la war a mën a faj parce que Sénégal am na moyens yu ëpp yooyu fuuf ba di dem Baye Fall nañ ko faj parce que yàgg na fi teewal askanu Sénégal dëgg te am na fi njaboot te ambassadeur la xam lu ma la wax na sénégalais yi goree mhm. ñu faj Baye Fall mu wér est-ce dégg waaw làmmiñu askan wi man la sum waa ji noonu naa feq yi mhm. tous ñebe muy bud budi boob euh, merci beaucoup le roi de l'information bu baax muy Khalifa Rappeur moom lañu invité woon tey si suñu plateau Fassaaria di ko jaajëfal di kontaan nag ñu nekkoon si ginnaaw ñoom du ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal di remercier nag lu ma yara choc ah, lu ma yara lépp lu baax loo leen bëgg rek mun ngeen woote si numéro boobu noonu di affiché lépp loo leen bëgg si xeetu sañse yu góor rek ah c' est disponible rue 13 la boutique bi nekk dinañ leen sañsel ah sañse yu rafet yu tubaabe yoo xam ne tamit nag dafa raar da ngay sol ba simmi doo gis keneen ko ko sol di jaajëfal ñëpp ñoo xamoon ne ñu ngi doon jël seen xol ak seen xel yëpp doon ko def si Sénégal 7 di leen jox dig daje feneen ak fu ñu koy defee si beneen plateau si beneen naanaan merci beaucoup à bientôt ciao Suivez-nous sur YouTube. Facebook, un Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal.